di si ut euh, liñ si bëgg mais marché bi moom jëlaguñ ko waaw man nag am naa si gis-gis boo xamee ni man la concerné. allez-y nous vous écoutons. Euh, société yooyu. Mhm. état moo leen reconnaître parce que bu euh, fii lu fi nekk rek ñu koy ñu koy bay bayal di ko seetaan mu romb un mois deux mois trois mois di jàpp ay un an deux ans état moo ko seetaan. kon il est temps euh, état bi fi nekk mu saytu leen xool si li ñu nekk est-ce que jaar na yoon wala jaaru yoon damay ñëw si euh, insécurité bi si am. Mm-hmm. laay xuus bu baax parce que man application bi. mos naa ko dugal sama mm-hmm. téléphone. Euh, bàyyi leen ci tur yi s'il vous plaît. ah pour ne waxtaan rek. de manière générale. foofu mën na si dara mais du ma tudd benn ok. Euh, mais dafa am loo xamee ni li si gën a nekk insécurité mooy que tey ñoom xamuñu nit ki de xamuñu këram xamuñu fu ñu dëkk boo demee si société bi yoroo sa oto wala sa deux nga ne ko damaa bëgg a euh, bokk amul problème ah bokk bi nice good fine da ngay ñëw rek ñu intégré la nga bokk après yow nga yëkkati am na si biir yow ndeem loolu société yooyu amul woon avant ñoom ñuy ñëw société yi fi nekkoon mooy allo allo taxi ak Dakar taxi yooyu déggatoo leen ko. man am personne taxi bi ma njëkk a yor Sénégal Dakar taxi la mais foofu bu fa bagaasu client desee si mu fàtte ko wala mu fàtte si portable am day téléphoné base bi. Hmm. ñu ne la P4 position nga ne position waaw maa ngi wakkaam. Euh, Euh, booru télévision voilà 7TV ñu ne la ok xoolal si ginnaaw oto bi client bi fàtte na foofu portable am nga ne ko message reçu la base croisé waat micro bi pour na xool jël na ko bien reçu état bord mu ne la ok dans combien de minutes nga ne ko ok 10 minutes quinze minutes ma indi la ko si base bi. ok yooyu dafa amul sécurité. mais dañoo formaliser seen lépp parce que ay zone noire lañu leen defoon ñuy ñu yor ñuy fay licence di fay patente di fay tout mais imagine euh, euh, kilifa gi jël benn particulier retraité

ñaari différence dama leen indil avant pendant et après ah. parce que ñun ñi nga xamee nii dañoo nekkoon ci tëli bi bi société yooyu amul ñun dañ doon suivre ay conséquences ay tentati ay tentatives ay ñun mhm. client ngay yàpp mu agressé la nga yàpp client agressé ko mhm. ñun suñu biir am na ñu daan def loolu ñu duppee leen ay siirumaan mhm. parce que du ñu titulaire oto bi. Mhm. gis nañ ko gisati ko man am man am personne man dal na ma fii nii en face euh, euh, Mamel pharmacie Mamel. kon bu ñu demee ba loolu mu am pëccëxoo nag léegi ku nekk jël sa oto particulier euh, couleur unique ah fayoo benn taxi yor nga yor sa moto deux roues xamuñu foo jógee mhm. ah xamuñu fële nga yemal doxoo nga jógee xamuñu foo jóge nga daal di ñëw ne voilà bokk naa si affaire bi woo ma. yow mun naa mun nga ma woo ma xam ne borom alal nga ma identifier la. d'accord pour dem si Pape.